yaa latiifu yaa kariimu yaa jaliil haamil jamii'anaa bil urfi kal jamiil waa commission sociale Touba ca kanam nooru daare ni ñoo fi ñëwoon fii njaareem fekk fi soxna Ndey Njaay ak soxna aadama Ba doon indil mag bu Jurbel ay xéewal pour ñi nekk ci biir bokk ci ñun mën a dundal màggal gi ñu ànd teeg suñu jëwriñ nag sëñ Mourtada Mbàkke ànd ceeg soxna Ndey Diop kon xanaa damay jox sëñ bi rek mu àggale kàddu gi. Euh, ñu ngi sant bu baax tey siyaare bokki taalibe yëpp waaye di jiital ci siyaar bi ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa ci liggéey Touba ci kanam bi muy El Hadj Serigne Tako euh, ak Serigne Abiboulahi Mbacke ak sëñ Abdou ak sëñ Abdou Fatah ak mboolem waa Touba ci kanam ñëpp rek. Euh, ñëw fi tey nag ci turu waaye ñëw fi itam ci turu commission sociale ànd fekk suñu bokk yi muy sëñ Bara Fall ak soxna Ndey Diop soxna Ndak Seen sëriñ Bàkki Sëy ak so fekk si fii nag eh, jëwri ni Touba ci kanam commission sociale soxna Ndey Njaay Mandel eh, fekk si tamit soxna Adama mi nga xam ne nii eh, moo yor wàllu social ci ci prison mag bu Jurbel bi ñëwoon fi tey nag ngir feeñal fi yéene comme niñ ko bëgg a defee ci bu Mbàkke bi ñëwoon nag ci bu njaareem bi ngir bisu sëriñ bi nga xam ne nii moom la ñuy si te mu waxoon ne képp koo xam ne mbégam sa mbég la bu dellu seetee nga di ko ci santale yàlla ñun nag woon ngir santale sëñ bi yàlla ci loolu mu woote eh, nii nga xam ne noonu la ñuy bàyyee xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti mën a am liberté dem dox seeni soxla waaye ñu jàppale tamit ñi nga xam ne nii eh, suñu borom da leen teg am natt ndax fii moom jombul jombul kenn ci noonu ndax mën nañ laa tooñ dugal la fi mën ngaa tooñ itam ñu dugal la waaye ku ci nekk rek da nga jàpp ne am nattu la noonu ko sëñ Moussa ko doon waxee rek eh, ndax yàlla xarit ba léegi musibaal ngir dara jaal ko mbaa ko mbaate mooy ko muy baal loolu nag mooy waral nit ki nekk fii ñu bëgg nag bis bii bu del bu ñëwee ni ko waa biti biti yëgee ñoom itam ñu yëgee xéewali sëriñ bi ci bis boobu noonu ko si suñu laat doon waxee rek ne yowmal xiyaam euh, aljana amuti bis waaye waxtu jamono ji daan defee màggal Tuubaa ñëwee rek ña nekk foofu danañ yéeg ne tey jii la bisu màggal Tuubaa loolu moo waral ñëw fii di sàkkuwaat itam ci ñi nga xam ne nii ñoo yilif barab bii ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ñuy gën a bàyyi xel ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw ndax doomu aadama yàlla da ko bind ak liberté njaareem gi li muy rëy rëy rëy kon waxoon ne ko doo fi génn fii ak ngay génn àdduna su yàggee dana metti ci yow kon nag buñ la yóbboo ci barab boo xam ne xëy na yaatuwaay ba mën naa bañ a demee noonu waaye ñu wax la ne amoo droit génn ci mbedd ma dong loolu moom fitna mënu ko weesu kon nag ñu ñu ciy gën condition yi ñu dund donte ñi ngi def ay effort état ñu ngi def liñ man ngir jàpp leen waaye ñu gën a yokk seen loxo rek. li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci jamono ju nekk mooy askan wi comme ni nga xam moom la Seexul Xadim ñaane woon rek wal tubasir bil yataama dawaa man si ansihim bii la kulahin dawaa man la wax na na na na ko sunu borom def mu taxaw mu taxawe ñi nga xam ne seen loxo juru seen ginnaaw mu taxawu leen leen seen waajur di taxawoo loolu la social Touba Ca Kanam bii fas yéene ñaanuk sëñ boobu ñu dox ci. ñuy taxawu nit ñi ci wàllug wér-gu-yaram loolu jamono ji nekk ñu ngi ci waaye du taxaw nit ñi ci wàllug dund di leen jox ay xéwal yu ñu mën a dundee waaye di leen taxawu tamit ci wàllug euh, ay dëkkuwaay ci bërëbu suturlukaay ak yeneen ak yeneen àgg nañ ci sax léeg-léeg ñu gis ñaari diggante yoo xam ne nii diggante bu xaw a ñagas la social da cay jéem a dox comme loolu nag moo waral ni ñu koy defee ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti sañ a dox seen i soxla loolu moo waral ñu ne bàyyi xel itam ñi nga xam ne caay bi da leen a féete seen ginnaaw te mu doon nattu suñu borom boo xam ne nii da koy teg ci eh, ab jaamam. ah ñun tey nag eh, maison d'arrêt et de correction bu Diourbel dañu am kontaan lool am mbégte dalal commission sociale bu Touba ca kanam ci njiitu nag eh, sëñ Mourtala Mbacke bu imnu sëñ Abdou Fattah imnu sëñ Falilou ñuy kontaan nag mu ànd ak nag une forte délégation ñu ràññee ci nag li ñu gën neex ñun. tabaarkàlla ñun ñi nga xam ne en kii madam Nia Adama Ndiaye assistante social partenaire nag bu administration pénitentiaire donc ñu indil ñu nag réinsertion sociale réinsertion sociale bi nga xam ni ñun ci la ñuy xëy suba ak ngoon ñun macha allah Touba ca kanam daf ñu ko indil tey ah, ñëw di ñu indil suñu wàll si màggal gi kon nag Mbàkke kontaan nañu bu baax a baax ñu ngi leen di dalal di am loolu mbégte ah may tamit amaat mbégte bu baax. bi nga xamee nag sama doomu ndey sama xarit ajaratu ndey njaay macha allah yàlla boole ñu ci njaareem ànd bu rafet tabaarkàlla muy jëwri jëwriñu njaareem maa bis ni tey man inscrire naa ci kuréelam kon nag ñu ngi kontaan ci turu directeur de l' administration pénitentiaire ci turu directeur de la mag de Diourbel ci turu personnel u mag de Diourbel ak tous les pensionnaires distinction yëpp muy quartier femme quartier mineur quartier des hommes ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla xam ni yéen tuubaa ci kanam li ngeen nekk am na solo ndax vulnérabilité bi dafa am solo kuy dem bay xalaat couche vulnérable ngeen ñëw prison Mbàkke waxuñu loolu ngeen ñëw ba Jurbel kon alhamdulilah yab la yàlla na ci yàlla def jàmm ca kaw ca kanam ngeen yokk am wér déwén mu gën a neex. waaw sëñ Mourtala ñun dañoo amul payam amul payam sëriñ Mourtala Adama Ndiaye yaa ngi wax sa waaye jàmbaari social la ñu nii koo xam ne xamul naaj wu tàng xamul kër bu sedd xamul mi ngi taw xamul sewet na te mënoon na koo xam ndax surtout sëñ Fallou naa toog di yeb la koy dawal waaye defu ko daw bu jotee moo ñu jiitu ca yoon wa mm-hmm. lu métti moo koy yenu ñun ñu jël noflaay kon barke amuñu sa pay mm-hmm. yàlla nañ sëriñ Touba fayal mm-hmm. kon xalaat bi nga am macha allah bu ko ñëpp amoon situation bi dina wàññeeku. Hmm. dina wàññeeku bu baax a baax. yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil jamiana bil urfikal jamil